cinq cent mille cinq cent mille euros yow xam nga cinq cent mille euros fa laa fa nga njëkk a daanoo ba <laughs> nga ne da ngay génne cinq cent mille euros sa litt yooyu mel ni butitu fas sa litt yi mel ni butitu fas nga ne da ngay cinq cent mille euros ma calculer la ko trois cent vingt cinq millions CFA ma ne ah, nga siiñ ñu waxati nga ne nag yaa ngi dugg ci dirxam bi ëllëg nga ne ma dirxam Maroc nga naan ma dirxam Dubaï ne ma deux millions dirxam cinq cent millions cinq cent mille euh, dollars muy trois cent beneen yow xanaa da nga am problème ak cinq cent mille ba pare daa juum de ci dirhamu Maroc bi la ko doon calculer. Ah, non moom moom damaa waaru man man man xaalisu Dubaï bi sax xamu ko de yow moom boo ko laajee du ko xam moom xamu sax xaalisu Dubaï bi nee na mosumaa dem Dubaï te maa ko gën a xam xaalisu Dubaï bi waaw xamu ko xamul xaalis bi man ku xool samay vidéo ba ma duggee di jënd sama or yi maa ngi tegoon lu ma trente mille dirham. gis naa ko de. maa ngi teg trente mille dirham trente mille dirham mooy ay ñaata twenty eight thousand dollars mooy ay douze mille dollars douze millions CFA li ci des ma fayee ko ay dollars. xam ngeen xam fa ngeen xam ne kii xale la aussi yow yow waxoo ay mi nga ni ay millions deux mille la judd quoi aussi kii xale bu ndaw ñi xale la waaye lim xam-xamoo ko a jolle nice xale déeru yi bëgg a jolle rek ki ki ki nit ki xawma li nga wax la loolu nag man après le débat mooy réseaux sociaux yi ñu bëgg nekk du nag xale yi jigéen yi nekk Sénégal. xale bi dafa fen ay fenam ba pare gëm ko fen li muy loolu moo war ngeen jàpp merci merci général Galsen merci général Galsen loolu mooy débat bi nga aw si dafa war a yee xale loolu ma gis nga Adamo ah, loolu nga war a def débat ndaxante bi nga Adamo Adamo ah. am nga ndam ba pare sama yoon nekku ci woon yaa ngi dégg ndax man Adama su ko nee na nga jël soo man soo gisee du may politique du may ci affaire politique. benn benn Macky Sall suma nit la jabaram suma géer la ñaar Ousmane Sonko sama yaay yi nga xam ne sama yaay yi foor ci man muy Marème Sougou muy Mati Samba Tall Las Vegas. <laughs> muy. alors Pambay Pambay Pambay muy Ndeye Pambay dañoo bëgg Ousmane Sonko yaa moom guddi gi wuy ma. Ah. yaa moom guddi gi yaa moom guddi gi yaa du ma nit ñun. barki Seydina Mohamed yàlla na nga gudd fan. Pambay yàlla na nga gudd fan. xëccaatal karaw gi xëccaatal karaw gi. xëccaatal karaw gi di ko diri Dubaay. di ko waaw. di ko buddi waaw di ko buddi ko buddi. di ko ko baram. di ko buddi dee ko rassa. muy yuuxu baram def ci ñetti rassa. muy buddi di ba mu des ñetti rassa. barki yàlla damaa bërëgu. billahi ba bërëgu. barki Seydina Muhammad bo Baye guddal fan mais boos. mais be be kontaan naa. mais ma daaneel ma ma daaneel. daaneelal daaneelal. yaa ngi dégg yi for man. dañoo bëgg Ousmane Sonko. ndax Ousmane Sonko yàlla moo ko dugal ci xolu nit ñi. yaa ngi may dégg. léegi Mbaye. donc mënu maa wax ci. damay bañ a wax damay bañ a wax sama liggéeyukaay laa nekk Mbaye. Mbaye mhm. damay wàccaat léegi wuy ma damay wàccaat léegi. Mhm. ab suuki laa am message bu ma koy jox rek. mooy laal na laalaake xamul ni boo sama doomu nday la léegi laal na laalaake de. waaw loolu dëgg la tooñ ak tooñul. Ah, ah, ah, Dubaay daal. Dubaay daal may leen ma rek Dubaay daal man maa njëkk a dénoncé day day day Pambaay day Dubaay yi maa ko njëkk a dénoncé dayu Dubaay yi maa ko njëkk a dénoncé yaa ngi dégg porte à porte yi sama passe bu mag bi ci lañ ma boloke boo demee 500 abone sax matul ma nga ca 4000 et quelque 400000 et quelque dayu Dubaay yi laa dugaloon jamono jooj ñoom ñëpp doon làqatu naan bëgguñoo dem bëgguñoo wane wu ni ñoom Dubaay lañ ñuy dem la ñuy def Dubaay xam nañu ko yaa ngi dégg. gis nga ab sukki mii mel ni bërigo bu taxaw weenam mi mel ni kuy nàmpal seen waa koñ. mi mel ni na rek léeg ñu yam. mu mel ni kuy nàmpal waaye kii dafa katt ndeem waay maa ngi doog a dugg ci ger bi nag gis nga ab sukki maa ngi ñëw doxat sa noppu nday muy riir nag yaa ngi may dégg. man la borom Barcelone aw ma jotu waxtaan ci guddi gi bëccëg laay wax ak fajar dinaa la laay fal laay bu fajar yi dinaa la tong tongal comme ni ma tongalee Dior Dieye ba mu daw caga pari bi yaa ngi may dégg maa ngi ñëw ci yow nag. daf ma xas ba ak maam Ndiaye Savon. mais mais mais yow nag yow Pambaay ngay xas. waaw Pambaay bu doon ci aadamoo la yam rek. wuy ma Pambaay wuy ma bu yamoon ci aadamoo rek di ko saaga ndey du ma ci dugg yàgg naa koo gis muy saaga aadamoo ma neutre. mais daa laal sama xarit. yow la toroxal waaye noppil. waaye bàjjenu gox noppil. bàjjenu gox da ngay waaj a dem màkk léegi tonton gox nga. noppil rek yobul bul jooy say rangoñ fer na léegi bu ma xëyee tee dootuma laayfal Dior Dieye bu ma xëyee tee dootuma laay laayfal caga Paris bu ma xëyee tee fajar gi damay ndekkee data yaayu ah, ah, ab sukki kooku weeram yu ngand yooyu nit nu muy mel ne noonu comme bërigo rafetul barki Seydouna Mohamed yow nan la mën a nekkee milliardaire ba pare dem dem Dubaay boo dee milliardaire ñëwal Espagne wala nga ñëw France yow ma soo dem France ma soo yéeg réewu Europe États-Unis moom da koy dégg rek. ab sukki amoo caapandeem ab caga dongu nga. buy luy buy xëy di luye ay oto Dubaay. xanaa jotoo ci audio yi. luye. yaay waay moom laa déglu kii toroxal nga ko. toroxal nga ko. toroxal nga ko kapo ku mas a dugg ci yow Dakar nga ndeyam. Ah. wàcc ma daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw. yaa yor réew mi yaa ko téye Dakaral ndeyam maa ngi sa ginnaaw. soko ba pare maa ngi ay identifié léegi nii ay document laa tee ñu lépp yow kay guerre bi léegi man ak yow la ak Pam Mbaye ak ak ak moom ñoo koy attaqué man fajar laay jël yow ngay jël guddi dama doon jël document bi yónnee ko Anita Anita jox ko ñu ñu jëli ko armo non nañ ko jëli nañ ko jëli déedéet bàyyi ma kontaan naa Pam Mbaye Pam Mbaye Pam Mbaye maa ngi dem Pam Mbaye Pam Mbaye maa ngi dem bul fàtte di diri cheveux bi karaw gi dee koy diri rek man maa ngi déglu ci suuf. soko dama koy fekk. waaw xoolal soko soko xam nga nu may def. waaw soko xam nga nu may def. dama koy fekk. waaw toog yumpi di lekk ginaar may yoot naan xoolal xuut xuut xuut xuut xuut. <laughs> yàlla gudd fan. ba jàpp ko ba ñëw tiim ko ne ko di diri meesi. di ko diri di ko diri di ko diri di ko diri di ko diri di ko diri. di ko diri. waaw waaye Galsen may ñu ngir yàlla sama xarit bi. gëj naa laa dégg yaa ngi si jàmm. wuy ma Pambaay léegi nag da ngay bàyyi boo ko diree rasa yi boo ko diree ba pare man dama bëgg sama ñeenti rasa yi ma maam Ndiaye di xasee moom laa bëgg baram ci data yaayu ab sukki bu subaa fajar xaar leen sama sama sama live incha allah ab sukki léegi bu ma xëyatee dootuma laay fal maam Ndiaye savon ci sa data ndaay bi laay xëy di ci yendu di ci fanaan da ngay yàq sénégalais yi da yàq sénégalais yi ñu foog ne ku dem Dubaay tekki Dubaay da ngay dem naari nga jaaxal naari de la puub looloo fa am yow la naari dayoon Pambaay wax na ko sànq yow la naari dayoon puub la maa ngi dem ta ñëw waaw am leen jàmm eh sama amoore waaw waaw. kii sa putin ba sa sa puti puta puta puti jotu faa yegg puti pat dafa ma jotoon a yegg dina jot am as kii sa naaru salté ca ca naaru marché la yem yeggu ca dinañ la tong tongal ba nga génne tiktok bi dinañ la tong tongal ba nga génne tiktok bi ah, ay ca nekk leen ci kontaan naa gaa yi Adamo focus focus rek jaajëf Adamo ma xaaral kii Adamo lu mu bëgg a wax mooy ah, gis nga nit ki ah soo jekkee aussi da ba ñu ngi li ñu lay wax nii amul amul sens léegi da fekk gaa yi xam nañ kan mooy awo yéen ñaar amoo ngeen problème problème publiquement gaa yi xam nañ lan la yaa ngi dégg jeex na. mbaaye sama papa ji nuyu naa naan da nga koy indiwaat loolu amul sens amul benn sens yow yaa ngi noonu yaa ngi foofu donc yooyu jëru nga fay def l'histoire daal mooy awa xam nañ ci lu mu nekk léegi donc bër la bëggoon te xam naa xale la kat deux mille la judd deux mille moom vingt trois xam nga xel yi xale deux mille yi da nga koy dégg ñu naan maturité parce que xel yi demeewul noonu jàpp la ko ah, dëgg la nag dafa précoce mais bàyyil mu sedd quoi nga baal ko et voilà quoi loolu moo moo si ëpp solo li ngay wax yëpp amul sens. kii moom li wax dëgg la nit moom soo jekkoo da ngay baale yaa leen mën yaa leen doole yaa leen gën a féete xale ñëpp xam nañ yaa leen mën lii moom naxe baay sax du yàggee ni mais baal Adamo sa micro bi dafa tëju Adamo sa micro bi dafa tëju waay ah, ok Pambaay dafa waxoon moom ci laay fam ñëpp di seetaan mu ne nan ko bindal awuskiti ku bëgg aadama ñu delloo ko Sénégal nit ñëpp seetaan vidéo bi léegi nag dama koo bëgg a wan ne ko man a yow kan moo ciy dellu Sénégal. waaw refoulé de la la yéene woon waa sama papa gi duñ ma may ma siif tamit ndax man damaa am ma may ma siif. fii de Pambaay nee nañu siif ku siifu doo wax. Ah, mais leen ma ma siif tamit kii suba ba tey mi ngi wax maa leen di nuyu Fatoumata Ndiaye nuyu sama papa yi Adamo nuyu naa la lu Khadija nuyu l'activiste ki mujjee dugg ak ñu nekk fii maa ngi nuyu ñëpp man de sama papa ji barki yonent yàlla Mohamed kaa bi bi muy xew booba maa nga Fatick tubaar fakàl la macha allah ñun ay sëtu ministre lañ duñ ko nëbbu duñ ko làkkartu nga wax ma ko ma am lu ma métti jàkkaarloog moom mu xas ma ne ma amoo jëkkër du ma wax ak yow ma ne ko yow amoo jëkkër lañ ma woo carte téléphone yow xale bii di wax kii amul jëkkër kii yaayam sax célibataire la moom amul jëkkër ne du wax ak mu naan aw ma ma wax ak caga ba pare mu ànd ak ñoo xam ne ñu favorise ko tey yéen a ngi naan na doy nañ ko baal mais yéen a ngi ànd ak koo xam ne day xas jigéen di tuumaal jigéen di yàq deru jigéen ngeen ànd ak moom te ku ko tuumaal tegal ko lu leer ci table bi ngeen ne lu tax xam nga Sénégal dafa métti ndax yow mënoo nekk jigéen ngay défendre beneen parti man may defendre beneen parti yow ngay wax ay fen ak ay dul ak ay day parce que dara gënt a métti Farba Ngom am ay doom ci dëkk bi li ma gën a métti man xaw ma Farba Ngom Farba Ngom defalu ma dara mais nga di ko jig naan day dem ci ay armée du sulli ay néew lii lan moo ko gën a garaaw Pape Malick Ndour ku ne xam na ne maa moom du ñu laale taal nga naan Pape Malick Ndour génne na fi kër dëkk dëkkal fi gelam di ñëw fi di ko seet si di ko dëkkoo loolu la te Pape Malick am jabar am ay doom ci réew mi xale bi dafa mën a fen amul lu ñu koy baal. Adama sa micro bi daal. waaw billahi yow la am na Sarata dama fàtte woon loolu Pambay li Sarata nettali lépp vidéo boobu maa ngi moom loolu rek mën na koo delloo Dubaay. Dumbe kenn mësuma xas kenn mësuma saaga Dumbe yaa ma xas. waaw waaw nan du ma wax ak caga APR yi ba pare yéen waa APR généralisé APR. am nañu mag am nañu faut pas généraliser looy wax da ngay wax ak say morom mais ngeen yéen waa APR ay caga ngeen yow général Gassène na ma yéen ñu wax ah bàyyi ñun ñi ñu wax tuuti. général Galsen ñu ne mais général Galsen mayal ñun ñi ñu wax tuuti. fii laa la ñu wax fu la waay. yow su ma ngi wax ah. la wax mu ne jigéen waa APR ay suba ba léegi yaa ngi wax. may ñu ne jigéen APR yéen ñëpp mu ne jigéen mu ne jigéen waa APR yéen ñëpp ay caga ngeen yéen ñëpp da ngeen di dem ministre yi di leen di tëddee man xaw ma benn ministre barke alxuraanu karim barke Seydina Muhammad dinaa la téegalal ndeyam ba muy xool benn place. na xool sedd man mii nga naan caga yow aw sukkiti man ndeyam ba muy xool benn place na xool sedd mbaaya na xool sedd guy na xool mel ni glace na très bien ça. ay maam yéen a naan jigéen waa APR. yéen waa APR da sa tur lan moo tax ngay généraliser naan jigéen waa yëpp. APR ay mag ak ay mère de ay yaay. ah Pambay waa affaire suñu njëkk duñ baale quoi waa benn bokk yaa ngi baale ma gis lay baal léegi. Pambay yaa ngi may dégg. Ah, yaa ngi sëgën. ah Pambay. yaa may dégg. maa ngi lay dégg. ah yaakaar naa ne kii danañ jub ci de demee dinañ jublu ci affaire am mu dellu Sénégal de ci li ma gis déedéet loolu xoolal nag aada moo tout sauf ça maa ngi jot ay message daal du ma wax nag damay wax dama ne waaw aada moo ko dugal bu ko delloo loolu moom bu mu am xam naa la man daal boo xam nga lan moo ma métti bos na sa xel ci réew jël nañ ko teg ko sama noppi man may nelaw man dóor nañ ma may nelaw man ñoddi nañ ma man may nelaw man li xew yëpp dama damaa jékkee jékki bi mu jékkee ba xaalis bi dafa bari Dubaay yi million million yi mu Dubaay <laughs> buñ ko delloowee dafay ñàkk ñetti appartement yi ñàkk ñaari duplex yi ñetti oto yi ak deux millions yi doxatoo grand grand pap millionnaire bu jigéen la Fouta Tampi nañ ko fa grand pap Fouta maa fi mbaay may rey maa fi en tout cas daal alhamdulilah rabbil alamin yàlla bu baax fii nga taxaw ne jigéen APR yëpp ay caga ngeen yàlla wane na la tey wane yaay kat doomu aadama booy wax da ngay defar sa kàddu booy wax nga wax a ki la tooñ mais bul généraliser amoo droit naan ñëpp yàlla nag wane na ne yow yaay caga bi yow yaay dëkk bi yow la ñuy tëddee ba bër set saarata dafa am lu ma bëgg wax Pambaay mu dégg ko Pambaay bu fekkoon ndaw si day fayam ci Ousmane Sonko dina wax ba dee man du ma ko tudd du ma ko tudd mu taf sama footo benn bis rek jublu ci man tooñ ma wax naa la ko tey ci live bi moo la tooñ de moo la tooñ Sénégal yëpp seetaan ko musuma wax ci moom xaw ma kuy awuskiti léegi ñëpp ne ma Adama bul waxateeg moom bàyyi naa mu continuer nit ñi naan ma Adama yaa ngi daw ma toog rek barki Serigne ku ne di ma woo gisoo bul ma bindal awuskiti sax yow ma koy wax ma ne leen waaye bëgg na fi dënn moom caqam yëngu mu ne Adama danga maa ragal waaw kay waaye tey moom war naa war naa ragal loo ma noppi rek léegi nag gis nga fi mujj Pambay lii laa la doon wax ba pare naan dem leen wax ko léegi reculé waaw Adamo naka la ñuy taalee live ci TikTok ma taal live jàkkaarloog aw sikkiti eh, ah, ah, ah, yomb na police da ngay bës police bi boo bësee police bi mu tàkk nga nga puus mbind yi mu jëmee dana la bindal live rek nga taal mu dem ma dugg live jàkkaarloog aw sikkiti sañ sa takk wurus yi takk jamaa yi wan ko ni maay borom Dubaay moom dëkkul Dubaay amul caq amul lam amul jaaro baaraam <laughs> dinaa ko wan ne maay borom Dubaay ma laayif laayifal ko 24 heures loolu kenn mësu koo gis ci àddina faay taay dama dem vacance moo tax ma songu internet bi. man damay jël vacance wax dëgg yàlla moom moo la tooñ parce que yow da doon àtte rek. waxoo fa dara moom dama doon àtte te moom laa faraloon. mais sama maa ngi ziar bu baax a baax euh, euh, Adamo. maa ngi lay ziar di ziar sama première njëkke Sarata Fouta Tampi. Tapha <laughs> nuyu naa la. ñu ma fekk Mbaye ñun ñëpp maa ngi leen waaw mais Adamo maa ngi dégg gars yi naan ay bu indi xaw ma aw siti nangam nangam man dimbali ma rek ñaari réservoir yi laa soxla dama am problème mu ndox sama kër ci kaw. ñaari ween yi mille ñaari mille litres yi muy deux mille litres ko ci kaw ñaari yi rek laa soxla réservoir yi. Adamo ziar naa la. soo jëlee ñaari mille litres yi soo jëlee ñaari mille ah nga may ma parking oto bi fi nga xam ne fi lay fi lay fi lay déposé coin fi mu koy recevoir man ñaar réservoir rek laa soxla mille litres yi ma aj moom bu ba Burkina Faso ñu wàññee ko ànd ak moom Mali Mbaye Mbaye ñi daal nee na ñu moom day ñëw wala day toog ñoom mën nañ koo yow kii wérul na ñëw fii bu ñëwee Dakar ne ba mu xoolaat dafa wér. ba pare dafa désactivé dafa désactivé commentaire. daa am problème mental. ministre de l'intérieur ñu ma ko jox jaarale ko ci Anita ñu Dakar ndeyam nan def noonu. Mbaye bi orange bi. Mbaye andi leen ko fii ñu Dakar ah? problème mental. tiset bu orange bi du ko simmi yow sa ma chérie aws dof la. dafa xuloo dafa xuloo copain am te copain moom t-shirt bi. tey mu dee de Sénégalais yee ko dugal ci lii lépp. soldaaru waaw Anita te xamul ne Anita Diop mooy Sénégal tey mu dee de. Anita mooy Adamo dossier bi Adamo dossier bi j'ai tout récupéré. lu wax ministre bi Adamo j'ai tout récupéré j'ai tout récupéré Anita mu ci laaj ko gis elle va revenir elle va revenir. c' est pas problème elle va revenir. mais Adamo Adamo Anita mooy àdduna. Adamo biñ ko njëkkee taf fii Adamo biñ ko njëkkee taf fii wax naa la ko mbaay tey ñëwaat na ci live uh, kii sëñ Bada xam nga newoon naa la Dubaay du ñu jaay seen suuf. xam nga jour bi ñu ko njëkkee bi mu njëkkee duul duule mi fii. laal la Dubaay di jaay seen suuf ñun ah, moom ba muy ñun ba dem Dubaay moom demul Dubaay. mais nan ngay ñoree titre foncier te sa te sa yaay yi. wala 2007 laa njëkk a teg suma tànk Dubaay bi ñuy dem Dubaay moom demagul Dubaay benn barki Seydouna Mohamed am na ku nekk ci benn car cargo miles line cargo miles line damay bañ a wax turam. wóor na Rasulullah katt na ko li Mbaye wax sànq c'est confirmé bi mu jógee Maroc ñëw man Mbaye kan moo ko wax valise rose la yor xaw ma kan moo ko wax ay valise rose la bàyyiwoon ci bi daa wàcc aéroport Dubaï réer ci biir aéroport bi moom ci boppam bi mu njëkkee wàcc aéroport Dubaï dafa réer salon ba ka ko njëkk a dalal salon mu njëkk a liggéey salon ba mu njëkk a liggéey salon ba mu njëkk liggéey waa ji nekkoon ci cargo bi folo ko katte ki nekk cargo Maersk Line bu Dubaï du ma bugguma bugguma jaar ci turam parce que dafa yor ay jabar yow Tafa man maay. man maay àddina. man maay man su toog laay toog. mbaya su ma bëggee renseignement ne ma mbaaya kaay. aw sukkiti man ngay saaga aw sukkiti. <laughs> aw sukkiti maa fii. maa fii laay foog laay bu direct. maa fii mbaaya laay foog laay. direct mbaaya takk say or naka la ñuy defee live da ngay bës am na fu ñuy bës plus. non fii après après naa mbaay après naa capturé après envoyé ko. capturé ma ko yónnee ma ko ma toj àddina. mais waaw kay naa capturé am naa jëm moom naa capturé envoyé la ko. bi filiation bi envoyé ko gars yi indi ndeyam. waaw loolu laay moo taxoon mu tëj sama micro di voilà bàyyi leen yooyu bàyyi leen yooyu milliardaire dañ koy indi fii ndax mu dimbali sénégalais yi nekk fii milliardaire la dañ dimbali sénégalais yi nekk dañ ko yi moom milliardaire la nañ ko dimbali mu ñëw indi nañ ko indi mu dimbali sénégalais yi nekk fii mais xam nga koo xamante ne day takkale pour fayal yaayam location boo leen ko indee day gën a déedéet day dimbali seen dama lan a lan ma rek yéen a ngi may aw aws buzz loolu a ma naqari aws yéen a ngi koy may may loolu rek moo ma kay man. man man maa ngi jël ñibbi yow kattan sa day yow kattan sa day ci suuf yow fay la wut koy baal danaan bay ñi naan wax ak jigéen ñi moom yoonam newu fi kii dugg Adamo waaw waxal waaw Adamo xam nga pour ñibbi sax suñu ma wax fi morom. ci ñu ko mën a lijjanti ci laa bokk mais li ma la wax rek tànk nañ dawal Kelemans. Uh-huh. comprendre nga. bàyyi kii nee na milliardaire la duñ ko indi mu dimbali sénégalais yi ko indi mu dimbali sénégalais yi milliardaire la. man milliardaire man ah duul li muy duul. waaw man duul ba pare takk itam di duul duul nekk Dubaï. da leen dimbali jël leen ci entreprise ñu liggéey sénégalais yi nekk xoolal xoolal li ma lay wax Adamo li ma lay wax Adamo bàyyi mi dem na Dubaay xam na li nekk Dubaay. Adamo ah, Dubaay moom mënut a dawal Dubaay xoolal gis nañu dawal day dem dugg xoolal day dem benn ligne ñu ñu filmer ko mu dugal mu mu dugal vidéo naan ni mais mënut a ñeme mënut a yor oto di circuler Dubaay parce que su suñu permis ñun Sénégal suñu permis dawalul Dubaay. tey jii comme man su ma ñëwee France exemple suma ma wàccee France sama séjour sama séjour mën naa dawal ci suma permis loolu Dubaay permettre ñu ko nanguwuñu ko. ñoom nanguwuñu ko suñu séjour ñun mënuñu dawal ak suñu permis léegi nee na moom yow amoo permis léegi moom nañ ñu wan permis Dubaï permis Sénégal du dawal Dubaï soo amee visa Dubaï soo wàccee Dubaï. kii day fen waay tafa kii di fen nga naan lan. kii day fen tafa waay xam nga visa Schengen suñ ko amee muy France Espagne Allemagne fu ñu dem suñu visa fii ak jeexul mën nañuy dawal ci suñu permis mais loolu amul Dubaï loolu Dubaay Dubaay xoola laajal ñi nekk Dubaay bu baax a baax ñi nga xamante ne yor nga seen contact dama nga laaj leen ko man bi bi mu njëkkee wax nga taf ko fii laal la day duul parce que titre foncier yoru ko. titre foncier moom benn la yor muy bajoon moom day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen day fen amati nga daan amati jël oto bi maa ngi jël oto bi ñëw sa kër xanaa déggu leen audio boobu maa ngi jël oto mooy maanaam maa ngi luye oto oto bi wàccee ma taxi. waaw taxi la taxi la taxi la. ay ma fii chérie ay ma fii ay oto ay ma fii. ay ma fii. Pambay Pambay. ay ma fii. muy mel ni mbala dëkk Pambay. am na audio boo xam ay sa mel bu dog pour bu toggee ceeb ñu yekkal ko. kanam gu roo ji ndax bàyyi nga caabi kër yi ci ci mel ni monaat ay maaf bu dul woon ay sa mu ay sa mu mel ni butik bu ñuy rat ay maa fii ay fii lu la jaral lii maa fii <laughs> gémmiñ gu ndaw ji mel ni tuun bu doxat bay delluwaat ay maa fii. man bu dee bu tamit lim naan am na xaalis war naa jënd gel de génne bébé xeeram yooyu. bilaay kii moo mën a fen. ba gëm say xam nga xam nga benn yërëm boobu nga xam ne mi ngi ci fukki vidéo bi ko dal nii mooy ku yorul da yaru soo yorul da yaru. vraiment vraiment Adamo Adamo na benn wax boo xam ne koy wax mu mu metti ma trop. boo yorul bàyyi di wax yow yaay Sénégal yow yaay àdduna nga naan yaay Sénégal yow yaay imbécile. da nga naan yaay yaay Sénégal yow yaay loxoti ndey kaaw Angleterre indi. non Adamo vraiment tey moom da ngaa toroxal kii. loxoti loxoti loxoti kaaw mais mais fii mënoon nan faa bañ a yàgg xam ngeen loolu ñu bari woo ma ma ne waxati moom dama koy may bës mu continuer rek. ko sos ci moom moom kay moo continuer di wax mais nag Adamo Adamo. waaw Adamo xam nga nan laa bëgg te mën nga ko na nañu luqati nday fi yaayam génn fi yaayam dëkk génn nday foto fi yaayam dëkk. non non foofu la nekk nii ñu ngi ci loolu. mais mais li gën a am importance bi moo gënoon a am euh, moo amul gënoon a am force ndax day bëgg jeex document baa ngi bëgg a jeex comprendre nga. li ko desee six mois moo des. yaa ngi dégg ce que xam nga dara bis ce que bis bu génnee bis buñ ko indee Dubaay barki alxuraanu karim dootu fa teg tànkam ila yow mi diini. yow ku la rek xam koy wax Dubaay États-Unis yam. gis nga bis bu ñu la fa bis bu ñu la buddee. Ah, wala ñu interdit la seen aéroport fa wàcc. seen aéroport boobu su ko interdit dootoo fa wàcc ila yow mi foofu. Awsu Awsu c'est une milliardaire par imagination. elle rêve. milliardaire par imagination la. lu ñëw ci bopp bi da koy génne dafa tëddoon di rêve naanul garab yi garabu dofi la naanul xam nga ni dofa tax <laughs> ci sept heures ma man ba ma yeewoo ba tey génn naa fi dem naa seeti malaat hôpital ñibbisi naa ràccu naa lekk naa ceebu yàpp sanguwul borosinul boppam bi diwul zel ci diggante bopp bi karaw yu bébik xeram yaa <laughs> ngi xale bi di seet jëkkër gi la sol ci suba ba léegi di ko laay fee oh. eh déedéet du jëkkëram de far bi far bi amul jëkkër. Oh. da lay leen ni sax rekkul amul jëkkër sax. oh oh oh xale footballeur ba xale ivoirien ba la wuy yaay acake xale baa ngay togg acake mi nga yuuxu eh aw si aw si kiki. aw si kiki. Pambay may ñu maa Pambay maa ngi Adamo Adamo Adamo Adamo xam nga Pambay Pambay parce que xam nga fan laa fan laa daanoo ci ci ci ci live bi bi ko Pambay ne firil say rideau taalal sa vidéo rek nga firil say rideau xam nga tey jii su doon downtown la dëkk su doon downtown la dëkk dafa yaakaar ne Pambay dafa dof man Pambay li ma koy gis Dubaay ni mu bëri fenêtre bi la ko wax nga wane waaye fenêtre bi nag su dee downtown la dëkk su wanee fenêtre man ñi dëkk Dubaay ay château ngay gis ay château man ñi dëkk Dubaay sax maa leen gën a xam Dubaay ñi dëkk Dubaay maa leen gën a xam Dubaay man Baaya Adamo waaw. ñu dëkk Dubaay sax maa leen gën a sa waay bës la doon wut. yaakaar ne bës la doon wut de non xoolal bës la doon wut mais nag mais nag Adama Adama bës la dafa mujjee dem dafa maanaam dafa mujjee dafa mujjee ëpp fi mu ko yaakaaroon la ko yaakaaroon te mu doon négatif mënoon na ko mënoon na ko def ñaan la ci njek ne la may ma ko ci njekk nga dimbali ma siiwal ma sénégalais yi xam ma ci njekk. dëggantaan. comme ni ko président waxee ci njekk. dinañ ko xam mais nag lii mu def nii lor na boppam mais mais xoola benn affaire naa la ko ñaan déglu leen laay fam bi déglu leen laay fam bi waaye non kii dañ koy dañ koy may bës kii kay fi mu doon dafa dafa dañuy wax mais tudd ci aado moom xaritam bi rek la nekk di wax ban xaritam xaritam bi envoyé information yi Aïcha waaw moom rek may ma may ma ay sa ko dàq foofu parce que yéen a gis ay sa yéen dafa rafet ay sa du moroom sax Adamo problème baa ngi gën a garaaw parce que da ci boole xale gambien bi te man gambien ku ko laal damay taal àddina waaw da ci boole dégg nee na ay cagalan xanaa déggoo ko nee na ay cagalan moom te moo bàyyi wax fafaata caga tamit moo gën wuy ma ay wuy ma Aïssa santuñu ko sax moom mu def dara na topp suñ ginnaaw rek ñun danañ doxaan dayam ñun liñ bëgg lépp dinañ ko def Aïssa moom bambaay bu mu sonn bu mu wax bu mu tontu. dañu ci bàyyi rek ay ma ay ma fii ay ma fii non fee mu fa nekkee mooy loolu noonu man